ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokkam taalibe Ibrahima Thiam gën a siiw ci Baye Koddu mooy jàkkaarloog yéen di waxtaan ak yéen fii ci Medina Baye Niass ci bésab gàmmoo màggal juddu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci ëttëb Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu fii ci Medina ci Kaolack muy bés bu màgg ci ñun bés bu am solo ci ñun. du tax ñun ay taalibe baay ni baay fonke yoon gàmmo gi loolu moo tax ñun fokk ñu fonk ko waaye danañ ko fonk ndax ay jullit lañ ndax kii tax ñu koy màggal mooy gën ci mbindeef moom la yàlla tabaaraka wa tànn mu gën ci lépp lu bind kon bésab juddum bu jotee ab jullit am na sañ-sañ ci màggal ko ci feeñal mbégte ci feeñal euh, cawartaane gi am ci bind gi yàlla bind yonent bi salaatu salaam ak yónni gi mu ko yónni ci àddina bi yëpp wax ko ci alquran ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina kon mbégte loolu la ñuy lépp luñ am mën nañ ko joxe lépp luñ man mën nañ ko def ci bés bi waaye danañ ci jàng alquran danañ ci julli ci yonent bi salaatu salaam dinañ ci digle lu baax tere bon laay wante biir dimbalante jàppalante te yàlla tax comme ni ko yàlla santaane yàlla daf ñu sant ñun julli ñu war a dimbalante kon bés bi bu jotee danañ teeru gan yi ñëw yëpp fu ñu mën di jógee ci àddina bi ñu dalal leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ñu toogandoo ak ñoom weccoo ay kàddu e, laay wante biir comme ni ko diina lislaam santaane ak diinu an nasiha ñu def ko te yàlla tax def ko te yonent bi salaatu wasalaam tax def ko ngir diina lislaam mais def ko ngir jullit ñëpp fuñ mën di nekk loolu moo tax danañ teeru gan ñi dalal leen teral leen waxtaan ak ñoom bokk ak ñoom jàngat alquran tekki ko ñu xam li ci njëriñ li ci nekk waaye ñu jàngat siiratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundam ay jaar-jaaram jëflanteem bu rafet kàddum gu rafet jikkoom yu rafet yëpp ñu nettali ko ke teew dégg bu déggee olof ñu wax ak moom ci olof bu déggee arabe ñi wax ak moom ci araab bu déggee français ñu wax ak ñoom ci français bu déggee anglais ñu wax ak ñoom moom ci anglais bu déggee yeneen làkk yi wax ci Afrique lu mel ni pël lu mel ni awsa lu mel ni yorobaa lépp ñu làkk ko nit ñi fi teew ñëpp mën a jëriñu ndax bu ñu nettalee dund ak yonent bi comme ni ko Baye daan defee ba muy nekk leer ne nuuruhu awwalul wujudi wujudan fa huwa usuli wal anjaali foofu la bàyyi daan dalee gàmmo ba yonente nekkee leer fa tàmbali di ko nettali di ko nettali ba mu juddoo ba mu màggee bañ ko yónnee ba mu wootee tasaare dina lislaam mais ban duggee ci ay xare yoo xam ne daf ko séq ak ñi wedd yàlla tabaaraka wa foofu la bàyyi daan jaar ak ñun ba léegi ñi ko wuutu ci pénc mii ci ëtt bi noonu lañ koy doxalee moo tax képp ku teew foo man di jóge ci àdduna bi da nga jëriñu xeet boo man di doon couleur boo man di yore kàllaama boo man di wax boo teewee ci dëkk bii sab gàmmo ba jóge fi ñii bi fokk nga yokk la chakka di nga yokk ndax li la tax a ñëw xam nga ko boo ci defee yitte da nga jëriñu kenn ku nekk nag xam nga la la indi yonent daf ñu wax ne innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa mu ne jëf yëpp ci yéena lañ ko tabax kenn ku nekk nag lam yéene lay am mu ne fa man kaana hijratu lillahi wala rasulihi koo xam ne danga nga gàddaay te yàlla tax ak yonent bi boo ñëwee danga am loola ku ñëw ngir àddina wala ngir jigéen wala leneen nag loola nga cay am kon nag gàmmu njëriñ la la ko dalee ca tàmbali ba ba ca jeexlu ba ñun nag Cheikh Ibrahima mooy suñ sëriñ moom la ñuy roy te moom yonentu mooy sëriñam moom lay roy moo tax mu ne ida saara xayru naasi sirtu waraahu fa in xalla yowman fal masiru baidu wa in xalla yowman fal masiru baidu mu ne bu yonent bi doxee mu dox topp ci kawam bu taxawee mu taxaw bu avancé mu avancé donc kon kooku ñun moom la ñuy roy ndax mooy suñu sëriñ moo ñu jàngal moo jàngale am njàngaleem la ñuy fàttali nit ñi di leen ci jëriñ guddeeg bëccëg ndax wax na ne bi zahiri shar'i wa nuuril mubiin u rabbi salikina bila shakkin wala rey bi nee na ci sharia bu leer naññ ak alquran ju leer naññ ci lay yaree ay taalibeem ci yar boo xam ne amul benn sikk sàkk amul benn deng deng kon Cheikh Ibrahima mooy suñu sëriñ moom la ñuy roy ca ndam daan dundalee guddeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba léegi noonu lañ koy dundalee dimension bi nag yegg na fu sori lool yegg na ci dayo boo xam ne musul yaakaar ne dana ca yegg ku dunda nag moom démb fekkee gàmm mooy démb fekkee gàmm mooy tey nga xam ne dimension bi yaatu na ndax fi mu ne làmboo na continent yëpp amul benn continent boo xam ne du ay junne junne nit danañ fa jóge dagg ay junney kilomètre dépensé ay junney junney ci xaalis pour teew ci barab bu sell bii bokk ak ñun ci màggal juddug yonent bi nga xam ne Cheikh moom nee na loolu lu war la ndax mu ko jëlee ci alquran yàlla moo ñu wax ne wa la naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nu maa nu thabitu bii fuaadaka yonente la yàlla wax na ko danañ la nettali istuwaaru yonent yi la jiitu lu tax ñu koy def pour loolu gën a dëgëral sa ngëm yàlla yow yonent bi gannaaw yonent la ñuy nettilil jaar-jaaru yonent yi weesoon pour ngëm yàlla man ci yokk rawatina nag ñun nit ñu xeebu ñii loolu moo tax Cheikh Ibrahim daan dajee taaliba bépp bu man foo man di nekk nga ñëw fekk si ko ngeen bokk waxtaan fàttaliku yonent bi fàttaliku ay jikkoom yu rafet ndax moom yàlla tagg na ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin ay jikkoom yu rafet la ko yàlla taggee taggeewut ko baayam ju baax taggeewut ko xam-xam bu bëri taggeewut ko taar taggeewut ko leneen jikko rek jikko ju rafet kon jikko jooju nag dañ ko war di nettali ñi nga xam ne ay jullit lañ ñu xam kan mooy yonent bi ndax xam gi day tax nga sopp ko te sopp gi nga koy sopp da ci ciy jëriñu ndax dana la tax nga tegee ci siraatal mustaqim di ko roy ndax yàlla tabaraka wa taala daf ko wax ne qul in kuntum tuhibuuna allah fattabiuni waxal julli ñi na leen bu fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen ma mën yonent bi ku bëgg yàlla da ngay topp yonent bi yàlla mu ne buñ bëggee yàlla nañ topp yonent bi te buñ ko toppee yàlla bëgg ñu soppuñu ñu jéggal ñu suñuy bàkkaar tegal ñu suñu tànk ci siraatal mustaqim te loolu rek moo am njëriñ kon gàmmoo ngi bàyyi fonkoon ko lool bu jotaan nga gis mu soppeeku gën a kontaan gën a tabe gën a bëgg jullit ñi dajee ñu bokk ñu waxtaan moo tax bu weeru feeñaan mu ndokkel boppam ne hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun bada li naasirina jamaaluhu hilaalu rabbi an fii jaa muhammadun fatamalana albushra wa amma nawaaluhu bu weeru feeñaan muy weeru gàmmo mu ndokkeel boppam muy ibrahima ndax weeru weeram la weeru ndax bu weer bi ñëwee nga gis taar àddina bi yëpp day leer lu koy leeral mooy yónent bi nga xam ne moom la yàlla yónni woon na ko ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiina yónent bi yërmande la pour ñan pour mbindeef yëpp waaw nga dekk doomu aadama bu nekk ci diine lislaam yàlla yónnee la yërmande bu toll noonu yónnee la ngëneel lu toll noonu lan moo mën a dox sa digganteeg màggal bisub judduum te moom fonk na bis bi mu juddoon muy bisu altine nga xam ne bu jotaan daf koy woor lu ndax fàttaliku ne moom bés bi ci la juddoon di ko màggal rawatina nag ab jullit kon am na sañ-sañ am na xàq ci màggal juddug yonent bi ca façon ba mu ko gisee boo xam ne dana dëppoog sharia dëppoog sunna dëppoog alquranul karim kenn terewul ko ko Cheikh Ibrahim fii mooy dëkkam ñu ngi sant yàlla tabarak wa taala bi ñu yàlla boolee ci aw toppam ñu nekk ay taalibeem dëkk ci dëkkam bi di rok di ko roy fa mu tegoon tànkam ñu fay jéem suñu teg teg suñu tànk yenn ñu ko yàlla yombalal te may ñu tawfiq ak taysiir najaa seen mbokk oustaz Ibrahima Thiam Baye Codou moo leen doon waxtaan ak yéen fi ci Medina Baye ci kaw jumaa yi Baye ji wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa kullu amin wa antum bi xeyr ba beneen yoon jërë ngeen jëf